C'est une euh, eh. question politique surtout c'est par rapport euh, la déclaration. am yi macha allah. waaw. Ah. Ah. moom sa plateau directeur Moustapha am na <laughs> ñoom ñooy yokk di waaj. non ni ma koy waxee question politique la ndax gis nañu chef de l'État moom fi defee sortie di annoncer ay milliards au total 450 milliards ñu gis ni loolu pour rek euh, emploi des jeunes la. mu ni tey jii bëgg na gën a jàppale ndaw yi ndax uh, ay uh, lu mel ni ay DER ak ñoom ñëpp dina leen jox xaalis boo xamante ni ndaw yi dina leen gën a jàppale ci wàllu ma ñi nga xamante secteur yi mu ciblé bokk na ci pavage wax na également enseignement bi mais man li may wax mooy côté Touba ndax gis nañu réaction boo def nga ni côté Touba chômage bi foofu daanaka dafa karakolé ba nga xamante ni tey jii bu ñuy wax yenn bërëb yi yenn gox yeeg goxaati Touba moo rawati fépp donc amna ben euh, madame, maanaam fu mu war a ëlbatiku ci Touba peut-être wala da nga japp ni chef de l'État amul lu mu defal ndaw Touba yi nga xamanteni ni ji ñeneen ñi donc euh, le gën le la gën a miser daal. je voudrais parler peu de minutes rek avant de donner président pour li muy joxe fam am solo. ci Fatou Bintou waaw bien sûr donc bëgguma ko dag parce que waxna naa de tax ñu dag ko limi wax man maa ngi am solo. Mhm. su fekkee ne Macky Sall qui est élu en 2002, attend 2000, en 2012, attend 2021 pour jox Jenny jeunes yi liggéey sinon 35 000 milliards yi jox en 2012 2021 430 milliards dafa jox jeunes yi ce ko hmm. su fekkee ne Macky Sall day bàyyi ba jeunes yi génn xaaju dëkk bi lakk mu parce que dina jox jeunes pour calmer les waaye waaye ku muy nax hmm. deer a fi

ah occas fa am marché petit commerce li ci des kon dañuy ñaw kese amuñu fa nit gis naa fa ñu yor bakk di wër kër yi di gas ngir ko leen fay 2000 pour ñu am lu ñu yóbbu fu ñu yóbbu lu ñu yóbbu seen kër. à Touba à Touba su témoin ñu am bakk léegi xam nga lu fa xew xale yépp ay dawakati sareet lañ waay waay te Touba. Nous avons fait fu waxati ko deuxième ville populaire de Sénégal deuxième ville économique benn ville buy buy 6 millions de personnes dans le monde ni mec ni ailleurs 6 millions de personnes dans une ville Vous avez fait le saoudi bi passé on presque aj amul parce que corona bi tax mais beaucoup dit jiitu 2019 deux millions huit cent mille plein la deux millions huit cent mille plein la lañ amoon loolu vous wax le ministère de l'intérieur. Nous sommes version 2020. Nous sommes entre 6 et 7 millions selon RFI. Oui, oui, c'est une valeur. Donc, ce qui est président de l'Union, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que investir 80 millions, 80 milliards qui 9 ans. Vous l'avez dit que Mais quand nous avons dit que nous presque 2 millions contient presque de 13 à 16

30 minutes 30 minutes presque ñuy dugg ñuy génn ñoo takk ay masques mais yëpp baax na. yàlla baax dama ne côté assainissement jumaa ja day taa la fa nekk